ñi mënul a ñooy laaj ñooy ñu laaj dëkk yi ñu laaj mais fu jëm bu dee dañuy toog di xulli suñu bëri kenn ñëwatul wax dëgg kenn moo ñëwatul fulla ko xaaju to topp la comme ay weñ comme ay yemb topp la dañoo dégg milliardaires yëpp dégg leen du ma tudd tur kenn ñëpp kandaale ñëpp même doomu milliardaires yi sax kandaale mais assainissement la mais la politique ça n'a plus de sens c'est le plus l'art de la cité mooy am xam-xam yore ci cité bi muy dëkkuwaay yi muy xam-xam bi xam-xam moo lal yore réew ak yore dëkk ku xam-xam amoo droit laaj réew amoo droit laaj dëkk am nga xam-xam wut koom continuer wut koom di jaay di jënd di commandé wut ay marché am ay milliards lew na la yaa waaye nag waaye politicien terrain politique bi nag yërim mais léegi politiciens yu euh, homme d'affaires yi dañ ñëw pour envahir le terrain politique comme <laughs> waa presse bi ku ci am sa télé <laughs> am sa rajo am sa journal xamatoonu la të ndax am nga ñu la waxal ñu lay tagg buñ toogee buñ toogee émission yow la ñuy tagg yow la ñuy wane sa journal yow lay wane say tournée nga ne saa yi demee laay réew mi nañ bàyyi caaxaan bi ku ne da am sa place bu doo profité ci télé yi wala émission yi bañ xam la ngay soog a def politique c'est de l'escroquerie politique